page Facebook salaamaaleykum alhamdulilah barikala man sax de xamal lu tax may on xamal lu tax may on on Facebook live right now ne pas ku may ku may ku may tey mu ñëw Fatou loo bëggoon. Mm, ok so maa ba ne feew ba pare fa xam ku may léet soo xaw ma tey sama bés bi fu mu jëm parce que fa xam ku may léet te sama yaram wi. tane na bot nekkagut hundred percent bot dafa am ku may létt dama nit xaalis bi so rejeeg naa ay nit si létt waaye fa xam ne nit yoo xam ne bàyyi foofu ma su fekkee fay jar na ko yàlla dina ma si léttam parce que maa ngi jéem a soo ki may léegi mu ñëw dafa war a ñëw xa su fekkee ne léetut kon léegi tey mu xagsi waaye ma ne xaaral ma gaaw def vidéo bii nii rek parce que vidéo bi lu ma xamal solo la léegi ñun ñëpp xam nañ ne vidéo yi ñu dee def nii dafa very addictive ok vidéo yi dafa mel ni drugs wax naa ko ba sonn dalee ko si man I'm addicted to these videos I get used to them and I just hold on to them like they are my second life I'm like finally have the freedom to talk so because ñun ñu ngi yar si culture boo xam ne duñ dee nangu ñu wax te ñun ñu si bëri ñu ngi dund métit you know so dafa tax ba buñ xamee caas léegi pour wax ñun ñëpp pour ngir di réeku rek di wax ta su fekkee ne yaa ngi def vidéo yi waaye sa kër fu nga nekk yaa ngi mel ni man yaa ngi nekk alone xamee woo jëkkër yi noo yaa ngi wéet te yaa ngi jéem a téye sa bopp subhanallah nga namm jëkkër namm góor te buggoo a def loo warut a def xale yi suñ la stressé doo xam ku la kadul guddi def la nga feel good wax naa leen ko depuis day one man moo xamu nëbb soo doon wari man am easy ami jóob la man comme xale bu ndaw lu si mon léeg laa lay wax free def nga si yow nga jooj yaa xam joti jooj so ak day gën a tax nga gën a def vidéo yi you su fekkee yaa ngi mel ni si moom maas bi for exemple xamewuloo jëkkër xamewuloo far you know nekku ne xamoo nit ñi la bugg bat yaa ngi lay ragal wala ngay teg sa time you know di pousse góor yi naan ah soo mel ni Amie Jobe su ma commencé di xam góor rek so su góor bu commencé di jom bëri rek ma wuti brique bala ngaa wuti brique ma tëb sa brique ba gën a gudd ca péelu <laughs> wala yeneen góor yu am fayda itam dañu dee ragal because ñu gis ngay def video ñu lay ragal you know these videos are very bad they are good if you are in a good way but pour nga def ko in a good way is very difficult because ñun ñu ko dee def ñun ñu bëri ñoo broken that's the reality ñu baax ñi nga xam ne dañoo broken they don't want to do video wax naa leen ko ba sonn fu mu jaar yéen ñu baax ñi nga xam ne yu not broken war ngeen a jóg ngeen def vidéo ngir yàlla ak rasoolu lay te su ngeen di def ngeen def vidéo yu baax yoo xam ne danañ si jàngee vidéo yi dañ dee wecc nit man mii seen vidéo yu baax yi moo wecc bëriwul nag vidéo yu baax yi bëriwul ci Facebook ndax saka suñ jigéen ñi suñ jigéen ñi duñ génn def vidéo pour nga xam yàlla wala nangam parce que soo koy def kenn du la seetaan waaw te léegi moom Facebook live bi ko nit ñaa ngi koy def di xas def yëpp fa tax ba ku ñëw sax ñu ne hii diw dafa commencé Facebook live bul bokk si lii Facebook live bul bokk si lii ñaaka fayda yii Facebook live nit ñi dañ laa yebbu si bokkal léegi fa tax ba nit ñu xam fayda ñi nga xam ne ñoo war a ñëw wax mbiri yàlla oo wax lu baax ba nit ñu mel ni man ñi par exemple ceen duñ ñëw wala su ñëwee kenn du leen seetaan that's the problem also xanaa nga ñëw ngir yàlla su la kenn seetaanu sa nga wax soo mu leen di ami jóg man de miin naa ko man suma vidéo yi si suma xol bi la day jógee ba nga xam ne su ma kenn seetaanu su ma toog ak caméra bi di wax ak moom su ma yónneewu si moo tax at yii yëpp dama dee wax lu ma war a wax su fekkee boo ma xam fii te su ma yoon ñëw si parce que dama gis àdduna waaye maa ngi taraay pour wecc duute damay wecc pour nit ñi bugguma woon te damay wecc pour suma doom yi ak suma bopp pour suma doom yi buñ jàng sañ googu noonu si man ak jom bi taka suma doom yi dañ dee seetaan suma vidéo yi saka ku jigéen ki léegi taxawa ba mel ni ki may letta ba bind ah bind ko xaw ma ndax mu si yoon yu mu so su fekkee ne ñun ñi nga xam ne ñoo war a def vidéo yu baax yi yëpp nit ñi war a def vidéo yu baax yi sooy ñu ngi ragal a ñëw mbala rus a ñëw mbala jos foog ne vidéo yi lu ñàkk fayda la ngir nit ñi ñu gis ñu di ko def di saaga ak def yu xam ne it bu ñëwee di wax lu baax duñu leen seetaan tax ñu toog loolu duñu dimbale jóg leen rek ñëw wax lu baax li suy benn nit moo lay seetaan sax mën ngaa wecc benn nit kooku am not joking is rather benn nit seetaan la nga wecci ko daan téeméeri nit seetaan la nga xasar leen léegi vidéo yi they are very addictive like I said hundred percent moo raw drogue sakantuma si koo xam ne happy wuloo ku mel ni man xamoo dara lu lay def happy looy ngëpp lu dul vidéo yi vidéo yi nekku daf lay def happy de tamit de vidéo yi mënta def kenn happy gis nga vidéo yi ku la wax ne dama see ñëw pour ma happy doo fay ak ah, subhanallah may try pour guute si weer koo lañ waxu la dëgg vidéo la happy loo nga koy gis ci xarxanam xarxanam yi borom borom bu lay wax ne la vidéo yi ñoo def happy sax nga koy gis ci xarxanam bi nga xam ndax loolu xarxanam yi ko happy la wala déet su borom di reesa ngay gis fake smile <laughs> I don't know how how how someone can do you know I don't know how to do fake smile I'm crazy I rather smile or I just don't but parce que nit ki soo def dara pour nga happy ida da nga go out mooy time bu ma daan génn you know time bu ma xamee xarit yu génn ba daan génn ok dama daan génn pour ma happy mooy balaa ma doon def vidéo wax naa leen ko man man wax naa leen soo boo ngeen xas ma sax but man moom am here for telling you the truth parce que no point ma ñëw fi di la wax ne dañ leen wecc ci lii tam man may may mel ni man may ku baax ki kenn baaxut ñun ñëpp a jee nekk di jéem a try rek you know di get better tey mu daan génn damay dangay solu ba nice you know sol sa jean sol sa nice top you know sol sa high heel sol sa rouge cekes cekes génn sol sa nice wig foo wicc ñu naan la you look beautiful suñ pilee nice musique yi you sa moroom yi ngeen di fecc ba deep down kontaanuloo well man de du ma daan kontaan <clears throat> dama daan fecc sax di jooy parce que nit ñi duñ ko gis parce que xam nga club daf dee lëndëm yooyu noonu ñu kenn xam xala lëndëm di jooy wala ma dem si gannaaw di feccee woon noonu que maa ngi ne may def fii ma war a toog si kër gi jàpp si yàlla suma doom yi may dénkaane di di jéem a di jéem a dugg si laay boo xam ne du suma laay soo musique mu ne maa ngi wax <coughs> so even bu ma daan def vidéo yoo xam ne waruma koo def you know yëpp for three years now I've been doing videos xam ne waruma koo def ba tey ji dama dee toog di maa ngi wax waaye maa ngi wax sama bopp amee lu tax ngay def lii waroo ko def lii waroo ko wax lii loolu laa dee wax sama bopp fii so how I'm gonna bi happy su may wax sama bopp ne lu may def waruma ko def moo tax sama vidéo yu bon yi ma daan def yëpp duma ko def ak ak happiness ak smile ak fake smile dama koy def ak won leen ku ma nekk si vidéo yi ne maa ngi wuti brique waaye vidéo yi they are very addictive like moo raw drogue ay billahi wallahi taala dañ ko dee namm di ko xiifal ni ku ni ku lekkut fukki xat noonu la ñuy def ñun ñu ko miin yëpp tout dalee ko si man like I said su fekkee ne yaa ngi def vidéo yi te yow you are just a normal human being you know a broken person du la def noonu so bu leen ragal make soo leen rek ngeen génnee seen notification vidéo su fekkee iPad ngay use bu mu xam notification su dee phone bi ngay use bu mu xam notification it's no point ngay def vidéo ak notification saa wooy wax rek notification ba tër tan tan tan tan kenn du dégg looy wax daf lay interrompre te am na yenn vidéo xam ne dañ xam important gis naa imaam yi sax taxaw di wax good videos waaye notification yaa ngi karra karri rek ngir yàlla génnee leen seen notification yi ci vidéo yi balaa ngeen a wax yéen ñi def vidéo yu baax yi continuer leen ko ñun ñi ci defagut yéen ñi ci defagut vidéo te yéen a ngi bëgg a def vidéo waaye yéen a ngi ragal nit ñi génn leen bu leen ragal nit ñi nit ñi sooy def vidéo yu baax te nga xam nu ngi koy defee doo jotee ñoom dara duñ la defal vidéo xas la duñ la def dara xam naa ne yenn ñu bëri loolu ngeen di ragal hii suma dënn bi jóg na maa ngi bëri waxta si weer koor lañu wéetaguma woon def parce que xadi nga tey suma yaare moo tax macha allah moo tax ma ne si weewee yi soo lii yëpp luñ dee jël si suñ si suñ waajur yi la man suma yaay nii la mel suma yaay si waxtaan ak bogli when si in the mood so easy going te mun a waxtaan koñ bi yëpp su ma leen di ñëw advice si suma yaay laa nuru ni advice de suma yaay koñ bi yëpp su ma leen di ñëw advice um, so loo xam ne la danga ko dee miin you know this video danga ko dee miin comme drop su fekkee ne sax lu baax ngay def it's good so soo ko miinee sax it's fine because saa woo ñëwee lu baax ngay wax ku la dégluwut yaa yaa koy moo koy yëg parce que lu baax ngay wax waaye su fekkee yaa ngi ko ni ami jóob you have problem so danga ko dee mun a xeex na daf dee wàññeeku man maa ngi try little bit it's getting better slowly little bit ok when it comes to nu ma dee waxee moom really improve na tane na trop nu ma daan waxee nu ma dee def ak nu ma daan solo musuma solu solu yu bon trop but solu naa solo yoo xam ne jigéeni julli di ko solo nañu wax dëgg rek ba um, nu may waxee ak nu ma sorry when it comes to nu ma addicté si vidéo yi ba tey génnagul adigi vidéo yi moom ba tey génn gut haa adigi vidéo bàjjo thank you so much <laughs> Mariam Mariam Sow Diallo am um, Touré sorry this nightmare addicted to videos are nightmare they real danga ko di miin ni drogue I swear God léegi like I said but daf la dee only addict I think I'm thinking I'm thinking I'm, it's not 100% so I'm thinking foog naa daf la dee only addict su fekkee ni you're broken like me because man moom loolu moo tax mu addik ma man wax naa leen sama dëgg bu ma doon commencé vidéo yi xamee wu ma jëkkër su ma woon jëkkër du ma nekk du xam joti nekk si vidéo yi 24 hours jëkkër ji sax du ko nangu waaw right sax góor gi may waxal de xam naa ne daf dee already waxul ma ko waaye nu muy behavior maa ngi gis ne bëggul may def vidéo yi all the time you know so damay end up wàññi by force it I like or not parce que nit ki doo mën a seey moom ba pare nga ne moom lu mu buggut dama koy def ba pare yow nga ne yow loo buggut moom fa koy ba it doesn't work like that by foo ngeen négocier tuuti ok so because lu ëpp tuur vidéo yi <clears throat> su fekkee ni yow yaa ngi koy def te yaa ngi broken te yaa ngi koy def yoon woo xam ne wóor na la ne daal yoon wi fa xala ñagas daal you know a sant njaay is not the best te nga di ko def saa yu ne it's not gonna help you all the viewers so ba pare da ngay nekk di mer saa yu ne man sax dund naa loolu nit ñu baax ñi dañ lay daw ñu am fay day dëgg nit ñi lay jege sax ñu si bëri dañ lay jege pare di la jëw ngay dégg jëw yi saa yi ne di ko dégg di mer saa woo taxawee si vidéo bi di wax loo warta wax wala def loo warta def nit ñi dañ commencé di la di la won hate di la commental hate ak a jos di la jëw ak a jos xame la sorry xam naa nit ñi fañ la war a bàyyi is their business but duñ ko def nit doomu adama njaay nii la mel sorry nit ñi duñ la bàyyi duñ ma bàyyi bu dee man la sax sorry this is how life is mooy lu ma doon wax si mbiri góor jigéen yi rek ba góor nit ñi xooyee góor jigéen jóge fii di reeku naa lu tam nit ñi di leen xooyee góor jigéen wax naa leen ne su ngeen bugg ñooy leen góor jigéen solu leen ni góor def leen ni góor te dallu loolu rek kay tax nit ñi bale na xooyee góor jigéen gox gox ji ni Ami Jóob muñ suuli di wax di perere ni pitaar bu tàkk di aka mel ni gaynde gu xiif aka mel ni pitaar du tax nit ñi balaa góor jigéen fay gën a tax nit ñi gën a yokk ñëw dal ak ñaawlante di di ñi bañ xam ne ngaa mer moo tax ngay kukkali xanaa nit ñi jógewu Sénégal ak Gambie façon boo ñëwee rek xam nañ ko so ii eh, da nga def sa bopp góor wala nga ne muut ne yereng ba nit ñi ko bax ba fi bañ suuli la nga noppi loolu rek la waaye pour ne nit ñi noppi mukk doomu adama njaay rek ak wax doomu adama njaay rek ak wax lu yoonu niw naa ne fañ war a bayaal la te ñu xam naa ko waaye nit ñi duñ ko def that's the reality man du ma moo tax ma wax lii parce que man du ma fi ñëw naan nit ñi nañ toppatoo seen business de nit ñi nii nit ñi naa waste of energy nga sama wax ju bëri ji yëpp ak maa ko bañ a waste kenn du ko def so why may booda di wax loolu doomu adama jaay ba na soog tey wax lañ fi nee te wax lañ fi nee bay robiñu ku def luñ la mbambee fañ lay mbamb mbamb bu baax ku def luñ la mbambee lu bon ñu mbamb la si lu bon fairness nothing can ci it soo buggee ñu mbamb la si lu baax nga def lu baax soo buggee ñu mbamb la si lu bon nga def lu bon li te nga noppi te muñ ko su dul loolu sa xol bi mooy dagg ak métit bu bu yàlla sàkk da nga tëdd ak naqat ndax da nga dégg luñ la wax that's the life dalee ko ci man dund naa ko ay xat am te li ñu des dund naa ko ay xat di def vidéo yi ma warut a def wax nu ma neexee nit ñi di ma wax luñ may wax ñoom itamit ah du nit ñi lay wax du nit ñi lay yàq seen community bi di di fi indi sañ ak jom buri di ko jàngal suma société bi soo lu tax nit ñi duñ wax ndax man yàlla laa léegi lu ma neex def maa moom si daal déedéet nu ma xamee raay pour ñëw ne lu ma neex def ah lu ma neex wax lu ma neex def man das how who I am noonu la nit ñi tam pour pour wax lu leen neex def leen neex das who they are you cannot do nothing soo waxee loo xam ne fay yàq seen community bi di jàngal gune yi loo xam ne baaxut hmm? nit ñi dañuy wax su xeboo yow mi koy def faale wu sax nit ñi dañuy wax parce que nit ñi faale nañ su fekkee ne nag yi wax ji fa la naqadi nga wecci mbala nga muñ wax ji jàng how to cope wax ji te ba complain mi man de mënumaa cope with wax ji moo tax ma wecci nekku ne dama wecci ngir nit ñi lañ ma daan wax rek waaye dama wecci ak pour suma doom yi seetaan suma vidéo yi parce que ku jigéen ki moo gën a dégg wolof xamul vidéo faana faana booy def te xamul li ngay mukk vidéo bi boobu vidéo bi jeex yenn yenn baat la si du xam te su ko xamul sa yéen ñi dafa dee wax ne loo leen wax sa vidéo bi ne nàngam lan la su dee lu bon la may jéem a rus yi na man si li tax ma wecc la bokk so loolu laa bëggoon a wax vidéo bi du gudd parce que fa lay kay seet mu ngi ñëw soon xam seen dama ma bind vidéo yi dee very addictive dee lay drop leaving home now aw ok fële moo ko yëg mu ne mu ngi ñëw so waaye yéen ñi nga xam ne yéen ngi def vidéo yu baax yi ngir yàlla dee leen génnee seen notification yi notification yi gis naa maa ngi seet bi imaam sénégalais bu góor gu dee waare noonu xaw mu tudd imaam bi ne London nag yépp rek waaye dañ dee notification yaa ngi kar karri ci vidéo yi la nit ñi def vidéo tamit ni sama maa ngi sax par exemple def vidéo jomb bu notification bi nee ci suma yoon néew si parce que vidéo jomb bi ji moom dee insane yow sax boo ko seetaan ngay xam ne waroo koo seetaan ngaa xiis moo tax nga ko seetaan so ñun ñi ko dee seetaan yépp te man def naa vidéo jombri yu bëri waaye du ma ko séddoo man du ma séddoo benn vidéo jombri ci jàmbur so ku séddoo sama vidéo jombri time bu ma ko daan def yaa koy yëg nga mel ni man moo tax wax naa leen ko ba so waaye yi si bëri boo ko séddoo wuti nga ko dee seetaan parce que dafa entertaining this is the problème doomu aadama njaay ñun suñ mind bi lu bon rek la ñuy bugg ñu def ko waaye lu baax la bugg lii moo tax nag nga nekk doomu aadama njaay dafa jafe parce que sa xel mi lu bon rek lay bugg nga seetaan ko walla nga def ko walla nga wax ko sax ibin waaye lu baax rek lay bugg a dund nag lu neex lu baax lu jekk plus nit ñi yar teggin nit ñi respect laa nit ñi def la ngay nit nit ñi bugg la genuine bugg you know nga xam supp kànja bu neex yi know nga xam jëkkër ju baax jabar ju baax néeg bu baax everything lu baax everything suñ suñ xol bi bugg xel mi nag lu bon la dee bugg nga def lu bon la dee bugg nga wax lu bon li ngay wala nga def lu bon wala nga wax lu bon nag léegi daf lay tax nag daf lay distract ba tax nag happiness pure happiness bis ba sax xol bi bugg doo ko mën a am lii moo tax ñu doomu Adama Ndiaye du ñu mën a happy te daf dee take a lot of research pour nga get to that place nag once you get there you master it you start having peace nga commencé di dund lu nga xam ne mooy tax nga mën a xam li nga di saaf soo ko deful ngay dund li nga xam ne fay tax doo mën a kontaan te doo ko yëg mbala nga xam ko tey ko di def maa tey maa tey bi is very bad is very bad sorry I'm reading I'm reading I'm reading what you're saying I mean you are do boring xaw ma lan what what I mean, why I why do boring <laughs> do boring. am I boring? That's not English if that's what you're trying to um, léegi ñun doomu aadama njaay li moo tax dafa ma dee distract ñun doomu aadama njaay suñu mind bi dee bëgg def dund loo xam ne du ñu daf dee bëgg dund happiness you waaye suñu xel mi daf ñu dee sant ñu def loo xam ne du ñu indil happiness because suñu xel mi daf dee bëgg ñu def ñu xam temporary happiness you know. temporal happiness mooy happiness boo xam ne danga koy gaaw a xam rek léegi nii rek mu jeex you know like écoute bi naan sàngara o njaalo o jënd yére boo xam ne waroo ko jënd amoo njëgam o nga njëg gi xaalis mu ngi war a dem feneen for exemple suma maas yi soo ko melee dem foo warta dem o def loo warta def o wax loo warta wax o nga war a def dara doo ko def because tayal nga te loolu noonu soo ko defee dina baax waaye tayal nga ko def it could be so many things like loo xam ne dañ ko war a def pour ñu xam pio bànneex parce que njëriñ lu ñuy indi mooy suñ pio bànneex waaye duñ ko def suñ xel mi mooy suñ worst enemy loolu moom dëgg la loolu moom yàgg nañ ko fekk fii si àdduna bi te fii lañ koy ba te wax boo xam ne la kenn du ko dindi tubaab yee àdduna bi yëpp a xam ne loolu xam kàddu boobu mooy sa xel mi mooy sa worst enemy beneen bu nekk suñ worst enemy tam mooy suñ ego ego mooy nga rëy parce que lu la mënti dal yëpp <laughs> can you retire what you are saying this this this naara person I can't read your type of English so um, what was I'm gonna say so su fekkee ne suñ ego bi ego mooy nga rëy mooy rëy rëy te ñun ñun doomu Adama Ndiaye yëpp yëpp xam loolu su fekkee ne nii xam nga sa xol bi ak sa xel mi xol xel mi di la bugg a def loolu bon te xel bi bugg lu baax te lu bon li la xel mi di def loo dafay indi resource resource mooy lan sax xaw ma resource ñu koy waxee si xolof waaye xam ngeen luy resource dafay indi resource yoo xam ne dafay mitit loo xol bi soo ngay xeex ñaar yooyu nekk di expérience ngay expérience bànneex bu la xel mi di def loo and then resource yu yu yu mu lay jox te xol yi bugg ko nga nekk si digg sa xel mi dafay confuse you know ngay dund bànneex sad bànneex saat bànneex sad si loolu rek ngay nekk forever and this could be video or like I said drugs njaalo sangara sàcci fen jow different things la day nekk shopping addict am na si ñun ñu bëri man dund naa loolu ay xat ñoo xam ne jënd yére rek mooy suñu habit si loolu lañ addict xaalis bu ñu xam jëndee ko yére soo duñ mus a xam dara suñ bank account te ñu ngi stress bi ko ñu ngi bëgg a jënd xëy na kër gu baax wala moto wala ceeñ suñ néeg bi for exemple wala def dara lu am fayda bor xaalis bi yëpp a ngi dem si yére te yére yi compagnie yi ñuy soxore compagnie yére yi nuñ soxore yére boo jënd ñu indiwu ko dàq taxaw di la xaar so danga di xam that temporary happiness soo jëndee yére bi nga sol ko nga feel good soo paree nga xool sa bank account bi nga ne what the I shouldn't do this and then nga jëndaat yére nga sol nga feel good nga ñëwaat ko sa bank account nga ne what the hell bi bànnee bu mu lay jox it's just a temporary happiness bi naqar bu mu lay jox moo gën a métti because yére bi is a fake happiness for example bank account bi is the real happiness for example because bank account bi for example mooy li nga xam moo war a tax nga xam kër wala moto wala xam néeg bu nga soxla wala xam nangam bu nga bugg you know wala just xam xaalis sa bank account bi nga xam ne tey tey yàlla tere su la nit kooloon feebar wala sa nanga feebar di nga a génne xaalis ay thousands of pounds for example nga Sénégal or anywhere fu mu niiree treatment for parce que joboot soo xamee xaalis sa bank account bi wala nit in general ku nekk Europe soo xamee xaalis sa bank account tax nga feel good even Africa tax nga feel secure nga feel confident you know nga xam ne tey tey dara xewee di nga mun a jóg nga dimbale you know so doo mun a def loo noonu yëpp because temporary happiness bi li la xel mi di def loo xel mi naan la jëndal yëre bële jëndal këpp bële jëndal ruuj bële jëndal jaaro yële jëndal lële demal cinéma demal restaurant defal li defal li ngay def topp xel mi rek soo paree nag xol bi moo koy dund métit bi parce que xol bi moom moo dee gis réalité you see what I mean so lii yëpp daf dee take lot of math about reading about yourself you know koo xam ne yaa ngi dund lii nii doesn't matter danga sop danga shopping addict wala nga video addict wala nga njaaloo addict jëw addict fen addict sàcc addict drogue addict whatever addict hmm. na nga xam ne fu mu jaar nga try xeex pour nga mun a xam dik deep down here happiness bu nga nit ci xol bi temporary happiness bu la addict bi di jox do si mata ban addict la hmm? dafay always destroy xol bi bànneex bu mu war a experience because daf lay indil bad results ida mu indil la results nga dem prison wala mu indil la results you know su dee danga nga xam jabar ngay ciit wala nga am jikkar ngay ciit sa sëy mu naa tas mbala respect bi ak love bi yëpp yàqu su fekkee ne tamit da nga nekk di jëw di fen nit ñi nañ ko yëg taajal ma toogu dañ na ko def xaw ma taajal ma toogu xaw ma yeah taajal ma toogu is like no it's not taajal ma toogu hàkki la it's called hàkki hàkki is when people just um, nga def dara nit ñi ñëw si yow they come at you you like nee na lii nga wax hàkk la oo lii nga def da da so dañ la hàkk ba pare dañ la taajal toogu yeah taajal toogu that's the right word dañ la taajal toogu commencé defanteeg yow you know like naan la lii nga wax lu tax nga wax ma lii wala lu tax nga jëw ma def lii dëgg nga ruus soobaa xol bi moo koy fiir su fekkee ne tam si jënd soppi nga addict xol bi moo koy fiir su dee si drogue nga addict xaalis boo xam dina dem sa respect su ko nit ñi yëgee dina dem su dee xam nga ay njaboot wala ay rakk ay mag yooyu noonu suñ ko yëgee mun nga leen a influence te lu yàgg-yàgg dañ ko yëg ba pare guilt bi su ko kenn yëgul sax ngay koy def secretly guilt bi de si xol bi xel mi moom du guilt de parce que xel mi moom bànnee rek la bëgg bot soo paree xol bi di guilt naan la he yow yaa bon yow lii foog nga ne war nga koo def lii su ko nit ñi yëgee foo jëm lii nàngam lii nàngam ngay xam naqat so man lu may gën a wokk on dis weeru koor mooy di gën xeex pour xaaye xel mi xeex xel mi pour ma mun a dund xol bi bànneex bu mu war a xam c'est ressource yi parce que xam naa ne xel mi lu may def loo yëpp man duma ko mun a bugg te nit ñi duñ ko mun a buggu te man duma si mun a kontaan parce que nit ñi suñ ko buggut par exemple nuñ may def wala nuñ may wax loolu yëpp si naqar yi la bokk man sama bopp tam mooy damay toog wax sama bopp dëgg xam ne lii waruma koo def loolu yëpp si naqar yi la bokk so instead jaru ko ma fexe xeex xel mi ba nga xam ne dinaa mën a dund loo xam ne suy xam bad outcome tam du bëri parce que àdduna bi nga def loo xamul bad outcome yombul parce que ñun ñuy def vidéo so ñun ñuy def politique vidéo yëpp nañ try tamit buñ def politique vidéo si weer koor bi ngir yàlla doesn't matter how you gonna do it because it can never be beautiful but xam naa ne di ngeen ko def anyway saka bu ngeen dogoo su ngeen dogoo rek ngeen wuti brick but su fekkee di ngeen ngeen def yoo xam ne de very humble you know respectful parce que su ngeen jompee brick trop ñeneen opposition yi jomp brick ñeneen jomp te si weeru koor lañ ne ngir yàlla so yuuxu naa ba mar naa léegi xanaa bàyyi so loolu rek laa bëggoon wax dafa nekk suma xol bi pour ma wax ko depuis bu ma xeexoo so ma ne fu jaar naa ñëw def vidéo bi because dama nekk di jël break of video hopefully dinaa jël break for the whole week of video just to tell you how addictive these videos are right di ba ma commencé def vidéo yi ba tey hardly ever ma toog semaine yàlla def moo vidéo never xanaa ma tukki de ma nekk Gambia so waaye fii man kenn ak suma doom yi rek wuu it's worse So it's like that these videos are very very very addictive so su ngeen gisee nit ñi di ko def nii bu leen toog rek ngeen di ñu xas kuy def bu baax ak kuy def bu bon si bu leen foog ne kuy def bu baax bi par exemple dafa dafay jaani ne moo xam yëpp dafay jaay moo xam nit ñi déedéet these videos are addictive so comme mii ne sa ko su nekkee yaa ngi def vidéo bu baax tamit nit ñi dañ la dee call ni la ne ñëwal wax si lii wala waxal si lii wala sa vidéo yi gëj naa koo gis de sooy def lu bon sax nit ñi moom de soo ivo ñu si bëri sorry doomu adama njaay nii lañ mel ay kase suñu xel mi sooy def lu sax man mii def nañ ma ko ba sonn tey moo daan def vidéo yu bon dëgg wax lu ma neex wala yow diw sàngam yow nangam you know di go rage on them for doing whatever you nit ñi dañ la dee call amee waxal si diw sàngam xoolal lu mu def gis nga lu xew yëg loolu lu xew diw sàngam gis loolu mu def dal di la yónnee vidéo ba soo muusu dëgg te nga xam fit te nga xam fayda sori rek nga tëb click like ba <laughs> soo bi leen di am job <laughs> so it's very very very addictive to do it like and it's so easy because you're gonna feel lii yëpp is linked to nu ñu dee yaree in a really strict home mm-hmm. dañuy dee yar in a home boo xam ne duñ nangu ñu wax duñ nangu ñu def dara di ñu dóor loo def ñu duur la loo wax ñu altu la so léegi soo magee danga dee feel like I have my freedom now I can talk I can do what I want everyone can find a better if they want I'm tired of less thinking te once you start developing that it can be very dangerous because the reality is nit ñi loo def danañ wax soo defee lu baax danañ wax soo defee lu bon danañ wax waaye soo defee lu baax suñ fukk ñoo war a wax at least ñaar ñooy wax soo defee lu bon su fukk ñoo war a wax juróom-ñett yëpp danañ wax ida dañ dañuy ànd yow si li ngay def ba pare di wax sa gannaaw hmm? wala ñu bala di seetaan nag waaye bala rek te xéemu waaye juróom-ñett yi yëpp ay wax te nekku ne wax bi rek moo war a tax nga wecc de the reality is lu ñuy def lu ñuy wax lu ne danga koy réccu dalee ko si man réccu naa suma vidéo yu bari already te vidéo yaa si nit ñi vidéo yaa si YouTube bi lay ka seet du ma sa génn ba abada tey ma fi demoon màkka ba ñoo toog ñu indil ma vidéo yëpp ne ko pam su ma doom yi tey ku si màggoon ba développe nekk sa mbadi xool leen ko si Adama ba rek ak nguuram gi mbooleem ministre yi yëpp sax ku si toog nit ñi fa ñuy wuti sa vidéo bu ñu xam wala sa nataal bu bon bu ñu xam sa sa opposition parti yi noo sa nit ñu nit ñi la bëggul ñi def ko wane ko àdduna si yow yaay kan wala sa yaay mooy kan walla dëdëdë nit ñi yëpp xam nga leen may saas parce que ñëw seen yaay yi meluñu woon ni ñun seen baay yi meluñu woon ni ñun nekku ñoon internet people moo tax waaye nu ko doon dalee ko ci aada boroog jabaram yeeg ministre yeeg you know all pa daa ñépp nu kon seen àdduna nataal yeeg seen àdduna vidéo yu bon yi seen waajur yi defoon ak nangam seen rakk yaay yi sax wala anybody ku ci def mos sa def vidéo bu bon rek yépp konoon mu ci àddina si nit ñi di leen ko ñaawale seen xol bi dagg te du duñ ci mën dara so ñun ñii di def vidéo yu bon yi ñun ñëpp laa wax dalee ko si man loolu yëpp si li gën a tax ma wecc ci vidéo yu bon yi la bokk xam ne suma doom yi dañuy mag si walla suma doomi mag yi suma doomi rakk yi kenn xaw ma si kenn ku nekk lu muy war a nekk su ma mag gële tey toggaam bi yaa xamee ay njaboot kenn si njabootam yi mun naa nekk ku xam importance suba ah Adama Barrow mii kenn xamoon na ne na toog ba nekk président bañ ko doon jur sa village boobu village ñaara fara gam juddoo noonu xamam maa xamam ko ndaa xamam soo suma mag bële toggaam bi ak suma rakk yi ngi xamee ñetti rakk yu jigéen ak benn mag bu jigéen ñun ñëpp ngi xamee njaboot góor ak jigéen macha allah waxuma jox sama njabooti bopp yi de laam duñ mën a wax ne njaboot yooyu noonu yëpp ñoom ñëpp kenn du si barke subhanallah non it's impossible yàlla melul noonu fii ku fi juru doom ju barke sa mag wala sa rakk wala sa nangam dana ko jur te njabooti sa mag yi wala njabooti sa rakk yi ñoo yow yam léegi bu ñu ràngee lu ñu neex def rek because nit ñi ñuy wax ne is your business is your life wala ñu ne la kii wax ni sax de moom moom moo la rawoon de léegi lay wax gis nga nit ñi dee very jump her barrage de lay ami job with their behavior sometimes you know why parce que ñun doomu aadama njaay dañuy wax nit ñi ne oh you know wasi ko ni life nit ki da nga war a dund wasi ko lu la happiness rek ok listen to this ba pare di seen time ñu ñun dañ war nit ki da war a dund lu baax nit ki war a nekk nit ku baax ku gore ñun lu tax ñuy ñun lu tax ñu sañ ñun lu tax ñuy xaste ñun lu tax ñuy ñuy xeet cooda ñun lu tax ñuy lii léegi xamuñ ne ñun ñu ngi ñun ñoo dee créer lu ñuy bañ noonu yëpp for exemple suñu waxee nit ki da nga war a dund ne lu la neex rek def ko ku wax kooku noonu dafa bon for exemple ok ñoom ñi lay wax ne dundal happiness rek ñoom ñoo ñoom ñoo baax for exemple tey man su ma ñëwoon fii de di def vidéo yu bon yoo xam ne dafay influence mun naa influence doomi jàmbur yi wala influence yeneen jeeg yi toog si si si di ko seetaan wala góor yi wala influence man suma own doom ji koy seetaan hmm? nit ñi ne ma as long as that make you happy for example ok te man xam naa man ak nit ñi koy wax yëpp xóor na ma ne ah xóor na leen ñëw seen bopp ne man lii mu may indil hate te xóor na leen ne hate yi du ma mën a def ma happy kenn bëggu ta ne société boo xam ne dañ lay yeb def la nga mel ni xaj mel ni ñoo la gën te gënuñ la just because of ni ngay behave mbala ñu gis ma sax man may ñëw di complain di wax ba yenn yi di joxe ngir nit ñi liñ may xasee ci vidéo yi par exemple yi may def man suma vidéo yi xas nañ ma ci ba sonn waaye mosuma ñëw di complain parce que man moo child marriage bi ma jaar moo tax suma xol bi concret yàlla moo ma dimbale rek may may get better ni on my own asu ah, thank God nu ko noon kuy xees Facebook may nekk sa bàyyi soo gisee man ma génn di wax ne nañ leen wàññi vidéo yu bon yi du ne woon maa tàggeeg nit de ku ma xam dëgg xam ne man xam nga kenn ku may tàggeeg man maa gis àdduna maa teel a gis pain from a young age ba àdduna saful ma dara maa suukar àdduna naan ko man su ma amee poreeg cereeg sàddañ rek am doon I don't care honestly believe me suma doom yi rek ñoo ñoo ñoo gën a tax may change sax ak jos nit ñi xam ne su ma meree culture bi it waaye su ma koy fajee noo xam ne may may may yàq culture bi loolu du ko mën a faj may jàngal nit ñi sañ wax ak def lu la neex ku wax nga ne ko das may lay loolu du mën a defar culture bi kon kay sàcckat yi nay sàcc soo waxee ñu ne das may lay njaalookat yi nga xam jëkkër xam jabar nañ continuer di njaaloo def lu leen neex wax ñu ne das may lay just everything else yu bon yëpp nañ ko def ku nekk ku wax ñu ne das may lay waaye doo mën a jóg ngay dangay nekk influencer influencer mooy nga jóg di jàng nit ñi lu baax yu know ba pare nag nga ne nit ñu ngay influence na nit ñoo ñun soto soo leen di jàngal lu bon nay soto te jël ko mbala ñu ba yow ni nga xamee right ba man nu nga xamee right ba ñoo ne may jàngal nit ñi you know doo si mata lu baax la leen di jàngal oo lu bon whatever noonu la nit ñi xamee right ba ñëw wax ma ne ma li may jàngal baax na wala li may jàngal baaxut wecci ko defee ko nii léegi instead nga jël loolu noonu jël ko ne nit ka la continuer di mer di jëf-jëfee ka def yow ngay try xam ne nit ki dëgg-dëgg sa gémmiñ xasew na lay ka seet sa doomi ndee la koy wax te nit su la buggee du nekk saa yi ne rek naan la yow good yow doing good daf lay wax dëgg gi te yow sa bopp sax danga ko dee xam nga vidéo yu bon yi ñu ko defee ko dee xam lay ka seet mën dee man tey moo daan def vidéo yu bon yi maa ko gën a xam balaa ko wala ma kenn maa ko dee gën a xam xamoon naa very few vidéo xaw ma naka um, followers yoo xam ne ndeysaan de very honest I respect them until now moo tax def lu baax rek a dëggu kon nañ ma ne ami bul def façon vidéo yi bul wax yenn wax yi ngay wax de inappropriate wala bul nekk di su nit defee dara nga ñëw defal ko vidéo mun ngaa wax rek waaye bul xoo tur nanga nanga waaye first time dama daan wax ne ah waaye mu ne ah, kii de lu mu wax dëgg la at least ñeneen ñi ma kool yëpp naan ma yaa fi toj rey nga ma xaw ma rey nga ma amit yow woy amit yow xaaral ma dem sebeni rey nga ma dajji nga ma yaa foni te fekk maa ngi doon defal nit vidéo dama daan toog ma ne he kii su fekkoon moom laa defal vidéo duma wax loolu su doon rakkam wala magam duma wax loolu mooy vidéo saxbe yi ma doon def waxuma sax vidéo nga defal ko nit te wax ko ak maanas de non sax saxbe yi ma dee def yu noo laa wax di xàjjee ka def yi xam nga ñun faana faana xàjji rek lañ mën all this is is to is to do with nit ñu yare you know nit ñu yare is very is is very important pour ñu seet nit ñu yare suñ doom yi ku foog ne soo magee sa doom sa bopp ninety percent chance danañ la toppandoo suñ la toppandoo tey nañ la toppandoo suba wala gannaaw suba su fekkee yow neewoo di dund sax neewatoo si àdduna bi sax man nañ koo dund parce que loolu lañ gis ñun ñëpp soo gisee ñu mag mën a xaaj ji mun a wax dañ mag si kër gi ñu kër yu mel noonu that's the réalité te ñu ko doon def noonu xamuñ ne is harmful xamuñ ne baaxul léegi nag mag ne si boo xam ne loolu baaxul mag nañ si société boo xam ne loolu is harmful te ñun ñu ngi war a dund conséquence gi léegi suñ doom yi des na si ñoom ñu wecceeku des na si ñoom ñun des na si ñun léegi ñu wecci pour suñ doom yi suñ magee buñ def buñ dund comme lu ñu lu ñu dund nii buñ nekk di dund ñun liñ leen jàngal di sonn lii yëpp si li gën a tax ma weccee si la bokk xam naa ne wecc rek for exemple kenn du ko def ngir ne for exemple nit ñi may seetaan foog ñu am guut non kenn guutu fi xaduna kenn guutu fi ku nekk da ngay xëy di try pour get better rek soo defee fukk démb tey nga xëy jéem a def fukk ak benn suba nga xëy jéem a def fukk ak ñaar ci lu baax waaye doo def fukk xëy def juróom-ñeent gannaaw suba nga def juróom-ñett gannaaw suba nga def juróom-ñaar di dellu gannaaw loolu kenn du ko def ku koy dund fu mu jaar nga parce que ñun ñi nga xam ne ñu ngi si media bi di wax ne dañ bugg a influence nit ñi dañ bugg béggal nit ñi def leen ñu kontaan def leen ñu influence lu baax nit ñi doo leen mën a bégal ak tam temporary happiness boo xam ne dafay indi bad consequences nga bégal leen ak dara comme lu ma expliqué jënd yére bi rek bégal leen ak dara loo xam ne fa leen di kontaan loo léegi suñ paree nag resources yi moom leen di indil moo gën a woos it's not gonna work parce que yow nu leen di béggale noonu fañ koy def da reality is ñun ñun ñun lu ñuy def lu ne nit ñi fañ koy def wax naa ko fii bu yàggu si beneen vidéo bu ma defoon man suma benn follower fii fooy Facebook commencé na already ne man maa tax mu bugg a muuru te man Facebook gambeen yi muuru tey waare mbaxi waxi yàlla ñoo gën a tax ma ma ma ñëwaat si yàlla su fekkoon gis ma woon benn gambeen Facebook wax waxi yàlla kuy muuru di def yëfi yàlla ah? dama doon gën a xam chance pour continuer ni ma doon def risaay si internet bi rek du tax ma boole si muuru gi xëy na kon suma mayin bi su ceeñee sax du tax ma boole si xam yàlla gi parce que may foog ne suma communauté bi is ok pour everybody to jump rek waaye bu ma gisee yeneen nit ñi suma communauté bi di defee fi yàlla lu ma motivé la te boo kenn du leen di seetaan sax de réalité lu ñuy def nit ñi dañ koy toppandoor suñ un doom yi mën nañ ko toppandoor doomi mag doomi rakk doomi xarit followers yi doomi followers yi nobody is safe su ñuy def lu bon si vidéo yi that's the reality that's the sad truth it's just a matter of time before they all come up te guney jigéen ñi ne bitim réew fi ak guney góor yi fii juddoo bitim réew fii mag hmm, wala even jógee Afrique nekk gune tollu seen ndaw di dundu lu bon si internet bi secret li moo bëri ndax internet bi soo bëggee am xaalis si lu bon rek internet bi mooy sa champion te kenn du ko yëg su fekkee nag yow yaa ngi nekk seen waajur di leen wan ne la bi lu la def si nit ñi ku wax na la bàyyi is your life ñoo mën nañoo dem si ron si dirty side of the internet di fa def lu leen neex di make seen seen seen ay xaalis na te is their life waaye ndax loolu xam na true happiness si seen xol bi fii doomu Adama Njaay even tubaab yi nga xam ne dañ dañ xam free life sax boobu hmm? ku ciy dund lu bon doo dee happy moo tax ñu dee use drogue pour seen xel bi génn si stress te dañ la ko dee wax ne la this is what I do but am not happy I hate myself for what I'm doing that's why I like tubaab kenn ku ciy def lu bon lu ne dañ la ko dee wax nañ leen xam ne dugut nit ñi ñëw si Facebook bi fii yëpp for exemple ne Ami Diop ba say vidéo yi nga doon comme tey ma daan def vidéo yu bon nit ñi ma wax ne naa ko bàyyi moo tax yituma si kenn man Facebook bi nit ñi ma génnee te naa kenn continuer di leen génnee mooy nit ñi nga xam ne suñ defee post moo like ko sia te man lu ma duñ ko like duñ ko sia dañ di interact ak man for whatever the reason is ñooñu yëpp laa nekk di génnee te dinaa continuer di leen génne but I don't hate no one I just don't pretend that's why du mu la mun a xamee ba pare nga nekk suma facebook xarit te nekkoo suma xarit at the same time lu ma def doo ko like doo ko siya yow loo def ma like nga taxaw doo doo bind dara doo def dara waaye lu ma def tamit doo ko like ko siya waaye yaa ngi yaa si internet bi dama dee gis ngay post nataal wala post dara looloo tax may génnee nit ñooñu ñëpp doo si mata ngay def vidéo or not ñëpp laa si nekk di génne te dinaa continuer di leen génne man noo xalaat sa tamit dama bëgg a close Facebook bii nii mu bi beneen su boobaa ku ma yónnee friend request ñu may jël yëpp mooy ñi nga xam ne dañ dee interact ak man right now xàmmee naa leen ñu si des yëpp du ma leen jël because I don't need all this too much Facebook because léegi sama vidéo yëpp sama YouTube channel bi laa ko defee dama dee toog record bopp post ko foofu ñun ñuy def vidéo yëpp tam wax naa ba sonn war nañoo dem YouTube nañ dem YouTube di ko fa def que bi su yàggee dañ la dee xaalis now listen to this kenn nekku di def vidéo yi pour xaal pour xaalis loolu xam naa ko wala suma maas gi day noo suma maas gi vidéo yi dañ ko tàmbali woon bi ko dañ bëgg a dimbali suñ communauté bi ko luñ dund dafa métti far nag ñu addict si chance yi finish nothing else xam ngeen ko war naa leen ko taddu man kenn ñu bëri fañ ko commencé woon pour dimbale communauté bi wala jàngal communauté bi dara nangam far chance yi yaa xam nga can si def lu baax wala nga can si def lu bon waaye nga see càng lu tax boo boo si càng lu tax nga di ko def Facebook fañ lay fay butul soo nga see càng nga fall in di nga addicted fine waaye léegi this is the problem with doing it on Facebook soo koy def Facebook bi ko Facebook duñ la fay dara nit ñi dañ lay yab number one saka booy def vidéo bu bon sooy def yu baax comme ça imam yi you know and stuff nit ñi dee waare ni that's good kenn du la si soo mel ni maa si Ami Diop di jom bëri Facebook dinañ la yàq parce que fa ñuy wax ne Facebook free la ah tey rek laay wax suma énergie yëpp naa dee <laughs> fa ñuy wax ne Facebook free la xëy rek kay suma yaay macha allah la ba pare yow yaa ngi ko di def lu bon for exemple mel ni Ami Diop you know and stuff di def crazy uh, insane videos mhm. léegi danañ la wooyee tur yi yëpp. ñàkk fayda doof hood attention depressed whatsoever different tour ngay mer balaa caat nañ leen def vidéo yi taxaw record ko ba pare nga dem def ko YouTube gi nga soo taxay di ko record te nekkoo Facebook live si nga dee gën a mun a focus man su ma recordé sama yi si laa dee gën a mun a focus parce que damay xam ne nit ñi nekkuñ di ma seetaan jaru may panique ma toog man rek ak suma xel mi nothing else mu wax lu nekk suma xel mi récolte pousse te su yàggee dañuy commencé di la fay man bu ma commencé di jël suma YouTube channel bi serious ak léegi yàggut waaye monétise bu ma xamee one thousand subscriber monétise nañ ma buñ ma monétise ak léegi is about ñaari weer te already ñu ngi may wane suma account bi xam na over hundred dollars xaalis so du ko jëlagum na dama ko fay bàyyi ba mu bëri su koy jël ma jël ko wax naa ko suma doom yi du ma nekk every month rek may gaaw di jël ñetti pepe xaalis yooyu but léegi bi ko dañ la dee fay xam nga xaalis seytaane la this is why is good listen bi ko dañ la dee fay yow nekkoo di ko def ngir xaalis de waaye bi ko yaa ngi gis xaalis bi mu ngay ñëw tuuti tuuti fay gën a tax nga jël ko serious soo ko jëlee serious su fekkee ne li ngay def lu baax la ah nga koy gën a yokk su fekkee ne li ngay def lu bon la woon sax dangay xam guilt su dee doomu adama njaay bu xam guilt nga kay soo melee ni man parce que man vidéo yu bon yu ma def yi dama daan tëdd guddi du ma nelaw di guilty di rus di xam ne suma askan wi maa ngi leen di let down maa ngi leen di jàngal sañ ñàkk jom wax lu la neex def lu la neex te su ma doom su ma toogoon di ko gis muy def noonu Facebook laay du ma neex man faatu su magoon def Facebook laay yi ma def fi ma xaru dee billahi wër kitaabi man Facebook live yi ma def ah benn bu ko faatu magoon def ko mën naa ne pourcent dee loolu yëpp laa xalaat ma xam ne léegi su ma continuer di ko def ay xat si kanam faatu continuer di mag di ko gis su ko defut sax su magee def leneen lu bon loo xam ne moo raw Facebook live yi di ko def secret ndax su ma ko yëgee dinaa ko mën a taxaw waxal ko ne ko faatu baxal muy fu muy ko dana wax ne moom but you're doing what you like and see say that I shouldn't care people lu ñu wax xam nga ñun suñ doom yi ku ci def lu bon bitim réew benn kàddu rek nga dee use pour ni pour mu balu muy def benn kàddu mooy ne suñ askan wi xamuñ lii suñ askan wi danañ ma xas suñ askan wi danañ ñu xas te gënuñ leen ñoom gënuñ ñu danga mu rusloo si askan wi buñ ko yëgee wecceekul ngir yàlla léegi di seen askan wi nga wax gune gi ne ko lu la neex def askan wi fañ waane te naa fekk te xañaan te this is your life nga wax loo gune gi xat yi yépp parce que yaa ngi doon def lu la neex di ko di use wax boobu tey nga bëgg gune gi déglu askan woo haa good luck good luck ci ñun ñëpp ñun ñu koy def nga gu nekk dana la wax ne la moom since when do you care about askan yow yaa ma wax ne ma nit ki lu la neex danga koy dund as far as you are happy and this is what made me happy nga toog nag ne topp jàkkaarloo gu nekk doo seen mata loolu nag liggéey bu bon bu mu manti do suy jaay drogue la suy càggatu la suy sàcc la suy fen la suy def just any kind of ñàkk jom insane behavior hmm? boo xam ne nekkul jos daf lay indi gàcce waaye mën naa gune gi laay fam sax mën na seen des des yàlla traité ko gune gi xadunaa mën na see yàq ñu tëj ko kaso lu nekk xam ne ah, mën na see xaru gune gi mën na see xaru ne fii xaduna ku nekk xam ne ni kuy dund lu bon dëgg danga dee toog ba xaru yenn yi wala nga nekk drop addict pour bul faale waxi nit ñi pour nga bloqué nit ñi seen wax yi waaye foog nga use drogue gis nga ñoom doomu aadama njaay nu ñu yàlla bindee very easy ndax kay seet lu ma expliqué arrière ron xel mi fay bugg nga def lu bon waaye xol bi du koy mën a jël léegi sooy forcer xel mi xol bi naan ko it's my di ko def li la xel mi def loo saa oo paree rek xol baa ngi jooy doo ma sa happy why you doing that to yourself though lu tax ñuy def loo suñ bopp nañ fexee def loo xam ne suñ tëddee guddi danañ nelaw xol bi dana si happy wet bi ko xol bi mooy réel xol bi mooy ku ñu bugg xel mi buggul ñu temporally lu ñuy def right now rek ak xel mi dafa am ego doomu adama njaay sa xel dafa am ego dafa rëy sa xel mi lay wax bul def lii bul wecceeku bul lii nit ñi dañ waane lii laa nee na naa da da da sa ka soo xamul xarit bu lay dimbale nag xarit yi dee very harmful damay wax lii bala maa dem man dund naa yu bari fii yoo xam ne xarit ñoo ma ko def loolu xarit yi duma ko bàyyi di wax de du ne maa bon moo tax ma ko dee wax yàlla xam na ne saa wu ma koy wax dama dee rus bay bugg a sebet sama bopp ndax yéen da ngeen foog ne maa bon moo tax ma nekkoon ak nit xarit tey ma toog di ko wax ay nit xarit tey ma toog di ko wax saka yéen ñi xam suma yenn xarit yi fii ngeen di wanda ndax kii la doon wax ndax kële la doon wax waaye soo gisee ma di ko wax man maa xam lu ma dund ak luñ ma def ak lu ma lu ma topp leen topp leen fu ma yóbbu ak yeneen yi ñu def ma ko on purpose kenn jël suma di teer si jël suma tur jël suma date of birth bu si ay stockaat yàq suma crédit history bi yëpp ba tey duma mën a am crédit history bu baax bitim réew bi give up naa to look for a few years ago I never check my credit history I think you can develop it again if you start getting credit card and paying on time soo gisee ma wax loolu boroom xam na duy seetaan suma vidéo yi I don't think so néew maa moom Facebook xarit waaye nee naa xam mbokkam facebook xarit ay mbokkam xam nañ ki may wax soo gisee may wax lu muy def du ma mës a wax soo gisee ma wax lu mu def noonu nit ñu bari ñoo xam ne ba tey dinañ ñëw di jël déetaf baate nit jël diiteel sam yi wuti si ay banque ay store card wuti si ay ay ay crédit card yàqal nit ki xaduna moo tax may wax soo gisee tam ma dee wax ne xarit yi dañ la dee dugal si li ñu la war dugal du wut ne dama nekk si ni koo xam ne soo xaritoo waaye man lu bon ma ñu wax ko non xam naa xarit yu bari yu ma def lu bon loo xam ne mën naa koo lim fii ba suba xam naa beneen xarit bu ma def lu bon loo xam ne fii ah bu ma dem Gambie bàyyee ko suma doom yi mu wut ci bi suma doom yi wax naa leen ko si vidéo ba nguur gi tuuti ñu jël suma doom yi police yi ñoo bugg a jël suma doom yi yàlla xarit bu baax moo ma séeg ba jël suma doom yi xam ne leen te su ma neexoon ma tudd tuutam waaye du ko tudd. def na lu mu def bi na ma yàq na suma xarit ak moom bu indi bu ñu waatee pour ñu nekk ak xarit mënumaa woon a demaat di na ma waaye mënumaa xamaat di seen fii ma xalaat ki nu mu bàyyee suma doom yu ndaw yi tey boo xale yi ñu ndaw kenn ki mu ngi six kenn ki mu ngi five ndax xama four I think they was three and four not even five they were so young soo xarit dañ dee def lu bon jarul ngay toog di lim xarit yi li la def ak di wax seen tur ak di nangam non man doo mos a ñëw ne diw yaa wax yow yaa wax ne nit diw moo wax nangam wala yow diw nii wala yow diw naa propre personal joke aside non personal stuff non waaye soo gisee ñuy def lii vidéo yi kenn ku ne di ko defee des own mad way hmm? number one we are addicted number two suñ culture bi moo ñu man suma maas yi culture bee ñu man ba bëgguñ luñ dund keneen dund ko dalee ko si xale nag di mag gis nañ façon bu ne si culture bi dalee ko si child marriage to everything te di seen culture bi nga xam ne dañ lay dugal si dañ lay def yu bon yi yëpp depuis childhood soo magee léegi di yuuxu di leen wax ne yu bon yi waru leen ko def ñu ne ngi ngaa bëri wax ngaa lii ngaa laa soo xam naa ne culture bi fa si butu te prestamol xamul loolu moom leer na waaye ñun ñu koy jéem a faj fu mu jaar ñu xam nañ koy faje temporary happiness bi du ko faj lu koy faj rek mooy nga nekk réel fii bu di déglu fii déglul fii digg guddi boo tëddee sa bi soo xamul xarit bu la wax sa nga wax sa bopp man suma bopp maay maay sees bopp man benn xarit bu ma dee advice bu ma change de maay suma own xarit bu may advice bu ma change maa dee tëdd guddi even balaa vidéo yi sax saa ma duggee si lu ma tëdd tëdd guddi digg guddi wax suma bopp dëgg xarit yi day just xarit they cannot live your life for you they cannot tell you what to do they are not feeling the consequence of what they are telling you to do mbooleem luñ la wax ne def ko is your life it could be naan sàngara def lu bon njaaloo whatsoever or video yu bon or whatsoever ñoom duñ tëdd guddi face the consequence it could be politique video yu bon or just saaga video or whatever video yu bon dafa bëri façon ñoom it's easy pour ñu ne la acca def ko is your your business thank you so much def ko nit ñi de just waane an nafiq an <laughs> but am nga lu tax mu easy pour ñoom ñu wax la loolu parce que ñoom duñ yow ba yëg yow métit bi ngay yëg gannaaw la nit ñi di tuuti di la xas te di ko dégg te xam ne nit ñi gënuñ leen gënuñ la ñu la ci xas ñu ci bëri sax yaa leen gën yaa leen tane waaye ñu ngi lay yeb simply because nga di yow yaa ko alaaw muy man muy ñun ñëpp def naa ko at yi yëpp I'm telling you this it's not easy it's embarrassing but let's just be honest def naa ko at yi yëpp alaaw nit ñi di ma xas nit ñi golo gong di ma xas lu ne nit ñi wax nañ ma ko xaw ma këyit sax nit ñi wax nañ ma ko man Amie Jobe mi ñu ne xaw ma këyit man nga xam ne suma interview bi sax wax naa ko fi ne man bu ma ñëwee fii wan iya laa am am këyit ñi may seetaan tax xam ma xam nañ ma ndax suma yenn xarit yi ba tey suma Facebook xarit lañ suma yenn xarit yu njëkk yi ma xam kenn ki ba tey suma Facebook xarit la xam na li may wane ak suma xarit bi sa boppam rek ak ñeneen nit ñi ma xam rek te xam ne dama yàggaa dem Gambie depuis balaa vidéo yi ki may létti ñëw na allo aha Hallo. Okay. I saw you. Just keep coming. It's there. That yeah. You see the door is there where where holding the phone. Yeah. Okay. See ya. You come up here. ki may létt ngi ñëw xaaral ma dem laa bëggoon a wax you know ne rek nañ leen ba di topp xel fii te topp xol bi xel mi lu ñuy def loo du yëpp moo ñu indi bànneexi xol bi te bànneexi xol yi moo real is das das what matter xel mi lu mu ñuy def loo yëpp bu ñu ko toppee saa wuñ tëddee guddi fa ñuy jooy si xol bi fii noonu la doomu aadama njaay mel so nañ leen try si weeru koor yi ñu work on that also kuy def vidéo ku ne na nga try nga def vidéo yu yoo xam ne is not gonna be politique na nga try nga def vidéo yu baax vidéo bu baax bi su la kenn seetaanu sa def ko rek su dee nga ñuy jàngal lu baax lu wecc culture bi waa society bi suñ suñ jëfin mu gën a wecceeku def ko su dee nga ñu jàngal yi fi yàlla def ko su dee nga ñu jàngal sa weer koor yi nooy defee ren gi sa weer koor yi wala togg bu ñuy mun a def bu gaaw boo xam ne dina neex just anything loo xam ne dañu ko mën a jàngal def ko see nit ñi xas la ne ah, sa vidéo bi dafa boring wala sa vidéo bi lii yow ñëwoo pour entertain nit ñi this is our mistake man def naa loolu nit ñi soo leen di entertain ñoom ñuy ree di kontaan ngay tëdd guddi mer jooy parce que di seen nit ñi ngay entertain bu dee fukk la juróom-ñett yëpp dinañ la xas tuutil la. seen like yi xam ngeen suñ nit ñi tamit nit ñi rek ak two face danañ la seen junni like suñ paree di la xaqataay di la wooyee dof di la wooyee depress stress mental health yëpp hello is number ten. Faatu ma buntu bi xaaral ma dem ki may ñëw sorry it's number six it's number six go up yeah it's there my daughter is hmm. xaaral ma dem ki may léttu ñëw na so am leen guur Ramadan dinaa leen ki beneen yoon su ma leen gisatee insha allah stay blessed stay positive buñ faale nit ñi lu ñuy wax su fekkee ne ñu ngi change pour bugg change pour dundu life bu bu better bu gën a baax buñ faale nit ñi naan kii fa wecceekoo fa ragal waxi nit ñi tax mu wecceeku xam nga nit ñi nit ñi dee dee xore bu fañ lay jëw ba pare ñu ne la waxi nit ñi tax ngay wecci yow yaay faale nit ñi ñooy tax nga wecceeku fa xam nit ñoo xam ne duñ wecceeku ba xadina tukki ndax dañ toskare te duñ bëgg yow nga wecceeku fañ lay xañaane wecceeku bi anyway lii yëpp duma ko mën a wax ki mel ti ñëw na bot suma ma yi moo dee tàng suñ culture bi ñun nuñ mel yëpp suñ culture bi ñu ko mel lool sit ñun niñ mel yëpp suñ culture moo moo ñu koy mel suñ culture bi daf lay wax ne la wecceekul xaw ma nañ leen dund lu baax nañ leen def lii nañ leen def lii ba pare léegi soo ko bëggee def ñu xas la nga dee di la nit ñi rek kay tax nga wecceeku for exemple man man am na suma yenn bios yoo xam ne barki salaatu fatiha buñ gisee suma wecceeku bii wax nañ ma ne Amie Jobe am soo happy for you Amie Jobe hey yow Amie Jobe am so happy for you God bless you nangam nangam macha allah booy xam ne yenn vios yoo xam ne bi lewul layta lay wax nañ ma xool nañ ma ne ma Amie Jobe Amie Jobe yow lan la hey Amie Jobe yow Amie Comedy lañ miss we I miss Amie Comedy yow sa comedy yu funny noonu si ah ni ngi sa faana faana sa yeneen wax yu funny yooyu noonu yëpp nga bàyyi ko oh Amie Jobe come on Amie Jobe bu waxi nit ñi bu mu tax nga weeseeku si loo bëggut a dugga soo bëggut a muuru léegi bul muuru bàyyi ba soo paree nga muuru bul faale waxi nit ñi nit ñi ku nekk si bu gudda bi yaa si bu gaaxata bi bu déglu waxi nit yi defal lu la neex fii àdduna la xale bu ndaw nga magaanguloo dunda sa life amuloo jëkkër amuloo dara yaa ami sa doom yi defal happiness don't mind people so just defal lu la neex rek bul faale nit yi fañ si butu te prestamol xamut nañ leen fàttaliku loolu soo ñun ñuy def vidéo yi ne xam ne ñun ñëpp a sibbutu ñun ñu koy def ak ñu koy seetaan juróom bu dee fukk juróom-ñett yëpp a sibbutu te prestamol xamut ku ko xamut te di leen déglu di foog ne fañ la loof fukki at ci kanam bu ñuy dund maag yow danga ne ami jóob dox bi waxoon na ko loo la guddi loofuñ fuñ la bëccëg seen bopp sax loo ko ñoom ñu ñuy seetaan ñu bëri seen bopp sax loofuñ ko ndax lu ñuy dund suñ ko defu Facebook it ku loof boppam du ko def seen doom yi mënuñ leen a woon piyaloof seen jëkkër yi mënuñ leen a woon piyaloof seen jabar yi mënuñ leen a woon piyaloof seen bopp sax mënuñ koo woon piyaloof ñu nga xiit seen bopp dalee ko si xeesal si jëw si butut bu ñu xam jëndee ko yére seen bank account yi remain empty si sëriñtu si just do so many things that is far from self love ci la ñuy dund ba pare nag yow ñu di la advice good luck xam leen good day